asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen xamal ni ñu ngi ci kër sëñ Touba gi nekk Tivaouane ci wàccaay ubbiteg jumaa ji tey jii di àjjuma dëppoog le 24 février 2023 ci ndigal sëñ Mountakha Bachir jamono yi nag ñu ngi fi am ay gan ñu ngi jóge ci barab bi fasantikoo sànq rek la fi Serigne Saliou ibnu sëñ Mouhamadou Moutada Khadim Rasoul ñëwoon sëñ Saliou moom nag moom la Serigne Moutada ibnu xaadim rasul joxoon ndigal ci ndigalu Serigne Saliou mu ñëw teg si woon xeer bu njëkk bi tey jii nag itam mu ñëw fas yéene fekk ubbeeg jumaa ji waaye nag ku ne xam na ni liggéeyu kër Serigne Touba bu Tiwaawan euh, naal bi naal nañ ko bu yàgg depuis 2001 waaye nag liggéey bi dem a dem ba jamono yi ñu ngi ci 2023 ñu war a ubbi jumaa ji ñu jàkkaarloog jëruñu liggéey bi sëñ Abdou Karim Ndiaye kon nag dañ ko jox kàddu yi rek bu ko defee tamit mu waxtaan ak mbokku bi yi nga xam ñoo ni seetaan waaye itam dalal suñu gan yi nga xam ne tamit duñ sax ay gan ndax euh, ay autorités yoo xam ne nekk ci biir dëkk bi muy le ministre Abdou Ndéné Sall directeur SENTER nga xam ne yàgg na loo ànd ak moom liggéey bi. tey jii nag ci inauguration bi tam mu def ni mu daan def ndax côté logistique at bu jot moom dañuy jox otoom jox ñu addiyaam ñu koy defal ci bis bi. Euh, délégation bi tam dafa ñëwaale fii kon incha allah dañuy jox sëñ Abdou Karim Ndiaye rek. bu ko defee tam mu yëkkati ay kàddu jëmale ci euh, mbokk yi nga xam ni teew nañ fi rawatina nag euh, délégation ministre Abdou Ndéné Sall directeur SENTER. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi yi ñuy seetaan yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey ñaan ci barke bis bii bisu ajum bu tedd ñu war ci ubbi jumaa yi kër Sëñ lépp ñu ngi fi jàng ci alxuraan ak xasida yi ñuy jàng. yàlla na suñu borom nangul lépp te ful ko te barkeel ko yàggal fii njiiti tarixa yi yëpp buñ tuddee sëñ mu Mountakha xam ne mooy seen mag doy na sëkk teg si sëñ Babacar man Mansour mi xamante ne bii dëkk bu tedd bii ni nekk moo ko yilif yilifaale ñun ñëpp kon ñu ngi leen ñaanal xalifa généraux yëpp ñu ngi leen ñaanal ak njaboot gi soog topp seen ginnaaw seen i naal egg kon nag liggéey bii ñi ko sos 2001 juin 2001 ci ndigalal Serigne Saliou ban jóge ci Serigne Saliou mu jox ñu ndigal nu ñëwaat ci kilifay dëkk bi ànd kooku ñoom dem ca Serigne Mourtada mu ni dafa sës ci Amérique yi Bamba Day jë juillet bu munta ñëw dina yeble yàlla def mu dem Amérique yebal doomam sëñ Saliou mu fekk fi Serigne Mamboor Sam mi nga xamante ni moom euh, Mamboor Sam bu mu Serigne Fallou di magam ñu ànd teg xeer ak sëñ seex Kajoor ak ñeneen ak ñeneen ak waa dëkk bi yëpp waaye yàlla dafa dem jiw fii sëñ Maam Mor Sam mi ngi fi. Mhm. Serigne Saliou mi ko teg si woon sëñ Moutakha Yeba ko. Mhm. léegi la jóge mhm. mi ngi dem prix mi ngi ñëwaat incha allah. kon loolu tawféex la. waaye liggéey ban ko àndee ba léegi nii. ñun yépp jurit ko ànd. du murit du tijaan du xaadir ñëpp lañ ko àndal. Abdou Ndéné Sall mii at mu ne Maam Mor mii la yebal joxe otoom def ci essence luy bagage moo koy jëli. te lu ci loolu day boo da cay boole joxe àddiyam ak ñin ko sëqal ñëpp muy autorité politique yi diine ji ñëpp seen alal mi ci dem kon daal sant la fu mu te mënul lu dul ñaan ñu ngi ñaan daal ci barke bis tëdd bii yàlla na suñu borom faj seen aajo ba ñuy faje aajo suñu borom yokk fan yi yokk wér gi lu ñuy sàkk ñoom ñoo ko xam ci àdduna yàlla na suñu borom defal ba defal leen loo xamante ni xamuñu ko woon bëgg nañ ko tax waaye xamuñu ko suñu te barkeel seen njaboot mu gudd mu gari sant rek lay rek tey bis tey bisu sant la mu sant ñu di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ci bi nu yàlla mayee ñu ñëw teewal fii monsieur le ministre Abdou Ndéné Sall ci ubbitu jumaa ji nga xamante ni sunu waa kër maam borom Touba ñoo ko def ci biir Tiwaawan loolu nag di wane ni diine ji benn la ni ko sëriñ Muntaxa Mbàkke di waxe saa su ne ànd koog sëriñ Babacar Sy Mansour damay faral di dégg ñi nga xamante ni ay taalibe maam borom Touba lañu bu nu musaana dem Touba luñ fay wuti dañ leen di wax est-ce que dem ngeen kër sëriñ Hadji Malick ba pare ndax Tiwaawan ak tuuba benn la ñu ndax ñoo bokk maam kon tey bu ñu ubbi fii juma damay defe ni kuy santale yàlla sunu maam borom Touba nga ubbil ko jumaa defal nga ko li mu bëgg parce que nag koo xamante ni ba mu duggee ci biir géej gi ñu ni ko bul tooñ sa moroom bul tooñ sa borom mu jël deram sànni ci biir géejam julli ngir bañ a tooñ moroomam bañ a tooñ boromam mooy fonkoon na julli ba fu julli yem kon nag bu nu ko defalee jumaa ci biir Tiwaawan mooy muritu Tiwaawan delloo nañu mbàttu ca ndaala tey nag ma ànd ak chef de délégation bi moo taxaw nii muy Baye Mass waaye mu joxuma kàddu gi ni naa wax ci turu Abdou Ndéné Sall directeur général de SENTER jëwrin wax na ko léegi ba chantier bi démarré 2001 ba léegi ñoom ñëpp ñu ànd ci li mu ci mën lépp mu koy def tey nag moom empêchement parce que dafa am lu muy liggéeyal le président de la république moo tax teewul mu yabal ñu suñuy kàddu tuuti lool ci kàddu yi nga xamante ni jox nañu ko pour ñu jottali ko en tout nee na moog yéen ci jumaa ji xam nañ ni ubbi nañ ko waaye des nay kocc koccal kocc koccal lag yëpp nag dina ko taxaw ànd koog yéen ba ngeen ko waxee oto comme na ko daan defee oto bi boobu ba léegi mu ngi fi di dox seeni service mu ne ñu nag dem leen ndax jumaa buñ ko dee ubbi ku nekk war ngaa làmb sa poos def ci ndax néegub yàlla boo ko defalee defaloo ko suñu maam borom Touba defaloo ko jëwrin defaloo ko kenn yàlla nga ko defal te moom ku ko xam-xam ni kër gu mu ubbi sax gu muy dëkk tabax na ci jàkka ngir dundal sunnal Seydina Muhammad sallallahu alayhi loolu moo taxoon mu ni teewal leen ma ko sama asaka yéene muy enveloppe bi ngeen joxal leen ma ko ci ubbitu jumaa ji waaye di leen wax ni moo gi yéen daal ba keroog ngeen di jël clé yi changé lampe yi kocc koccal yëpp pare incha allahu taala donc kaddu yi loolu la woon rek bëgguñu ko guddal ndax waxtu wi dafa xaw a xat